سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأم ميديا جروب نور الدارين ginnaaw biñ sante yàlla subhanahu wa taala julli ci yonentem boobu sallallahu alayhi ñoo ngi leen di nuyu nuyu bu sell wa rahmatullah di leen di leen ziyaare ci weeru sell wi nga xam ne yàlla dogal na ñu nekk ci di ko dund di waajal bés bu màgg boobu nga xam ne bii mooy sunu bés bi gën a màgg ci ñun bi gën a am solo ci ñun bi gën a baax ci ñun muy fukki fan ak juróom-ñett ci weer wi nga xam ne eh, tukki gu am solo googu gu barkeel googu ci la yàlla def na xaadim rasul fajal ko ci mbooleem aajoom yépp waaye tamit fajale ci suñuy aaju ñun yépp àdduna ak alaxira kon ñoo ngi leen di ndokkeel di leen ziyaare di jël néew boobu ak ziyaar boobu rek di ko teg ci loxol kilifa gi ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké suñu kilifa mu jot leen ñu ko ci mbooleem jëmm yu sell yi nga xam ne yi ñoom lañ bokkal liggéey bi mu tegal ñu ko ci seen loxo ñu di leen ziyaare di leen ndokkeel bu baax a baax a baax di ñaan yàlla subhanahu mu dool ñoo jàppale dolli ñoo defal gudd gi fan ak wér ak fekk ak tal ba lépp loo xam ne bëgg ko gën a yokk seen jaamu yàlla rek yàlla jàppale leen ci loola bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ginnaaw nuyoo boobu rek ak ziar bi ak sant mboole mbokk yi nga xam ne yi taxaw ci liggéey bu sell bi rek ñoo ngi dellu itam di e, Ngom mi nga xam ne mii moo jiite liggéey bi te di ko saytu di ko dox wax dëgg yàlla taxawaay bu rafet bu sell bu baax bu am am solo ñoo ngi koy ñaanal yàlla daal subhanahu wa taala lépp loo xam ne lii am na koy mébét ci liggéey bi rek yàlla na ko ci yàlla defal lu ko we njottam bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te nu ànd koog di sant wax dëgg yàlla mbokk yépp borom xam yi ci biir rek eh, ñi nga xam ne ñi ñu ngi ci indi seen xalaat yu rafet ak soxna yi nga xam ne yi ñu ngi ci biir ñoom itam wax dëgg yàlla fonk liggéey bi loolu yittewoo ko yal nañ ci yàlla defal koy suñ njortu ci ay xéewal ak i ngëneel bi jaay sayna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon xam naa tey mel na ni laaj yi taxu ko bari lool ndax euh, ñaari laaj rek lañ fi am yoo xam ne yi ñu ngi jóge ci mbokk mi di suñu xarit sëriñ Mbay Jaañ ñu di ko ndokkeel di ko moom sant moom itam ci leeral yu am solo yu njàngale mu am solo mu ngi def ci biir liggéey bi ak yittewoo gi ak euh, jàppale nga xam ne gi mu ngi ci mu ngi ci jàpp bu baax a baax a baax saa su ne saa bu yëkkatee kàddam rek maanaam ñu dalle ko ci bu baax a baax kon xam na ngir waajal magal gi mel na ni ak xat-xati jamono ji tax na ba tey mel na ni laaj yi taxu ko am solo lool waaye kon xam naa lim fi ci la ay laaj moo doon ñaari laaj yu am solo nag xam naa ñu jëm cee leeral rek suñu këm talaay kàttan yal nañ ci yàlla doole jàppale bu baax a baax barke Seex Xaadim kon laajam bu njëkk bi mi ngi koy laaj lu jëm ci wàllu sunna comme noonu ñu ko doon waxee rek lu jëm ci wàllu sujudu sahwi dafa am ay sew lool yaatu lool lool nag ñu war ko def suñu yitte bu baax a baax ndax sujud boobu ñuy wax sujudu sahwi te mooy sujud ab jamac ci ak julli eh, dafa xaw a yéeme lool xaw a doy xaw a am ay sew-sew te moom aju ci wàllu wàññi ay sunna wala yokk ay sunna su ko defee sunna yooyu tamit wax dëgg moom boroom xam-xam yi dañ ci am wuute lool lool maanaam ci bu dee ci wàllu lim bi la bari nañ ci ak wuute lool bu dee ci ña xeet yi mu doon itam dañ ci am wuute lool waaye li ñu ci wax daal mooy sunna yi nga xam ne yii nañ ko lim incha allahu jàpp ko su ko defee noonu ñu koy wax mu ne yenn yi day doon sunna mu akkada yi ci des nekk sunna xafifa maanaam sunna yoo xam ne yi dafa dëgër mooy xeeti sunna yi ak sunna yoo xam ne maanaam dafa oyof comme niñ ko mën a waxee su ko defee su ma limee li nga xam ne lii mooy sunna yi nga xam ne yi ci la ñuy sukkandiku nii mu doon yëpp yi nga xam ne mooy sunnay julli su ko defee it yi nga xam ni moom lañu moo ci sunna mu akkada maanaam muy sunna yu dëgër yi léegi itam dinaa ko ci xaaj tànn ko lim ko bu ko defee ñu mën a xam sunna mu akkada yi ne yii la waaye itam sunna xafifa yi itam yii la kon sunna yi nuy sukkandiku fii nga xam ne mooy doon sunnaay julli mooy dañ naan al iqaamatu mooy mooy mooy taxawal julli as suuratu saaroo nga xam ne moom ngay jàng ginnaaw fatiha ci ñaari rakka yu jëkk ci julli mën a doon ak taxawaay ba nga xam ne bii danga koy taxaw di jàng saar woowu as sirru ak yalu ga nga xam ne gi dañ ko yàllu ci béréb ya nga xam ne yi moom la ñu yàllu war a yàllu al jëhru ak biral ga nga xam ne gii dañ koy biral ca béréb ya nga xam ne fa lañu war a biral wa kulu takbiratin xayril ula ak bépp allahu akbar boo wax ci biir julli gi rek bu dul bu jëkk ba loolu sunna la tashahudaani ñaari taay yi nga xam ne yi moom la ñuy taaye ci ak julli muy taay bu jëkk ak taay bu mujj al juluusu ak toogaay yi nga xam ni moom ngay toog bu fekkee ni yaa ngi taaye su ko defee Euh, da cay bokk itam azzaidu ala tumaninatu dal googu nga xam ne gi maanaam dañ ko boole woon ca euh, farata ya loo ca gën a ca dolli rek muy dal ga gën a gën a dolleku loo ca dolli rek ne loolu dañ koy limaale ci sunna yi waaye itam bokk na ca sunna yi insaatu mamumin la daa ijhaari imaamihi nga xam ne nit ki buñ la jiitee bu sa imaam di tari ca kaw maanaam nga nga nga noppi bañ a wax maanaam bañ a tari loolu limaale nañ ko ci sunna ya al jahru bi taslimi fi ngay waxee asalaamaaleykum it maanaam nga wax ko ca kaw maanaam bire ko loolu ne nañ sunna la asalaatu ala nabi ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa muy bi ñuy def ci ñaareelu taaya boobu sunna la ak raddu salaam alal imam am na yoo xam ne maanaam asalaamaaleykum jooju bu ko imam waxee maanaam nga delloo ko ko loolu ne nañ sunna la assitratu ak wut saatir bu fekkee da ngaa nekk ci ak ndéneer goo xam ne gi ragal nga ko romb ci sa kanam nga wut loo samp ci sa kanam ngir bañ ko jaar diggante ak fi ngay sujjootee sami allahu liman hamidahu ak wax euh, sami allahu liman hamidahu yii daal mooy sunna yi nga xam ne yii euh, moom ñun moom lañ jàpp ne euh, mooy sunna julli nee naa leen nag sunna julli moom borom xam-xam yi dañ cee wóotalu baree baree bari ci wàllu lim ga waaye tamit ak nañu jàppee ne moom la kon bi ñu boole loolu ñoom ñoo ñëpp ñoo doon sunnay julli su ko defee kon dañ ci tànn juróom-ñett yoo xam ne moom la ñuy wax as sunanul mu akkaratu mooy sunna yi nga xam ne maanaam mooy yi ñu dëgëral maanaam yooyu yi ñu feddali yi gën a dëgëri maanaam juróom-ñett la ci ni ñu ko jànge bi ci jëkk mooy as suuratu ne ne saar bi ngay teg ci fatiha ci ñaari rakkaa yu jëkk kooku sunna mu akkada la asirru yalu gi ngay yalu sunna mu akkada la al jëhru biral gi ngay biral sunna mu akkada la dañuy boole nag ñaari allahu akbar wala lu ko ëpp def ko sunna mu akkada taaya bu jëkk ak taaya bu ñaareel ñoom ñaar ñëpp ay sunna lañu toogaay bi ngay toog itam ngir taaya ñaari taaya yooyu sunna mu akkada lañu doon muy juróom-ñaar su ko defee juróom-ñett bi mooy dañuy boole ne ñaari sami allah liman hamidahu wala lu ko ëpp itam dañu koy def ab sunna mu akkada kon juróom-ñett yi daal mooy sunna yi nga xam ni moom la ñu ne mooy sunna mu akkada yi soo ko limee mu nekk juróom-ñett soo ko génnee ci loolu ma liman muy sunna yépp ñoom ñooñu ñooy doon sunna mu akkada yi ya ca des kon mën nga koo ber mu nekk sunna xafiifa ya kon ñaareelu laajam bi day laaj xukm man tazakkara yasira faidatin fi xaadiratin day laaj ateb ki nga xam ne kii dafa war na fay ay julli wala ak julli waaye fàtte ko ba dugg ci julli gi teew eh, nga xam ne mooy julli gi teew mu dugg ci di ko julli eh, bi mu demee ba julli gi laataa muy jeex nag maanaam balaa julli gi di jeex fàttaliku na ne moom kat am na julli gum war na fay bale julli julli gi nga xam ne gi moo teew waaw laaj bu am solo ndax da fiqh maanaam ñi ñuy jàngal fiqh dañuy wax ne dafa am limab julli boo xam ne bii bu la rawee bala ngay julli julli gi nga xam ne gi moo teew da nga war a fay julli yooyu ba mu àgg nga dogal julli julli gi teew yooyu nag moom la ñuy wax ci fiqh yasirul fawaiti mooy julli yi nga xam ne su la rawee limab julli bi nga xam ne bii bu la rawee moom nga war a fay bala nga julli maanaam dañ ne maanaam mi ngi tàmbalee ci genn julli ba ci juróomi julli euh, génn julli bu la rawee ba geneen julli teewaat euh, bala ngay julli julli googu teew da nga war a fay julli googu ba pare doog a julli julli gu teew dañu lay continuer bu nee juróomi julli la bu demee ba ci juróomi julli itam moom lañuy wax yasirul fawaid juróomi julli su la rawee bu julli teewee bala nga julli julli kooku danga nga ko war a julli kon eh, dañ ne bu dee benn jullee la raw wala mu dem ba mat juróomi julli geneen julli ñëw teew nga dugg ci di ko julli soo fàttali ko ne war ngaa fay maanaam julli googu moom doxatu maanaam googu day da nga koy dagg am na nu koy defee nag su ko defee moom laa bëgg a leeral nii comme ni mu ko waxee ne moom Euh, julli timis la la doon julli fekk na ne julli wutan takkusaan dem ba ca ñetteelu rakka ba ca taaya ba defe naa ca mujj ga muy doog a farleku ne euh, moom kat jullitan takkusaan kon moom lan nan lay def waaw loolu lañu ko bëgg a leeral insha allah dañu ne iza tazakkara al fazzu awil imaamu yasira faitatin fi xaadiratin xataa bi salaam li ñuy jëkk wax foofu mooy ne ne ki ànd moom dong di julli mooy alfazu wala ki nga xam ne kii imam la maanaam day jiite su demee dugg ci biirab julli gi teew di ko julli fàttaliku ne euh, moom kat am na julli gu mu war na fay balay julli julli gi teew nene maanaam julli googu mu duggan noonu di ko julli te war na fay julli googu da koy dagg su ko defee nag dagg julli googu maanaam ni ñu koy defee moom la lay wax ni danaan wa nadban in atamma rakaatan ne dañuy bëgg euh, euh, wa shafaa wa shafaa nadban in atamma rakaatan ne nag maanaam bu duggee ci julli googu farleku ne am na julli gum war a na fay te fekk na julli na benn rakaa ba pare maanaam ne bëgg nañu mu jiliwaat beneen rakaa maanaam def ko ak naafila maanaam mu doon ñaari rakaa muy doga dagg julli ga wa kammalal maghriba baada rakaatayni ne nañu tamit bëgg nañ bu fekkee ni eh, jullik timis la mu dem ba julli ñaari rakaa maanaam mu mottali jullik ga eh, maanaam mottali julli ga timis googe maanaam julli ñetti rakaa doog a sëlmal waaye bu dee jullik ñeenti rakaa la itam fekk maanaam mu julli ñetti rakaa dog koo farle ko itam bëgg nañu maanaam naam dañ ko naan continuer mottali julli googu nga xam ne gi ñeenti rakkaa la waaye nag boo ko defee noonu ba da ba sëlman ne soo sëlmalee ba fay julli googu nga xam ne gi moom nga war a na fay ne ne bu dee ni timis jëla fekk julleen nga ko ba mu mat da ngay baamuwaat euh, timis googu bu dee geneen julli la yi itam euh, bu comme julli ñeenti rakkaa gi mu wax fii fekk julli ngeen nga ko ba mu mat ginnaaw bi nga fayee ba pare julli goo julli googee itam euh, da nga koy baamuwaat su ko defee nag ki nga xam ne kii dañ koo jiite moom te moom moo amoon borob julli waran koon a fay balay julli julli gi teew fekk dañ koy jiite ne na moom du dagg ak julleem day ànd ak imam ba julli go googu ñuy julli ba mu noppi maanaam ba imam salmal su ko defee moom mu war moom mu waran a fay mu daal di jóg fay julli googu nga xam ne gii moom la waroon a fay daa baamuwaat nag julli googu nga xam ne gii moom la waroon a julli te mu doon julligu teew gi kon daal euh, ku fat ku war a fay ay julli daal te nee naa leen julli yi ñu war a fay bala ñuy julli julli gi teew mu ngi tàmbalee ci benn ba ci juróomi julli ne ne loolu moom ku ko war a fay rek maanaam soo duggee ci julli gi teew soo ko farlekoo ci biir moom maanaam mën nañ ne julli googu doxagu doxatul dañ ko war a dagg waaye daggin wa nag mooy nii ma la koy waxee bu dee jullik euh, timis la masalan fekk nga julli benn rakkaa euh, dangay ngay mottali ñaari rakkaa def ko ak naafila daal di sëlmal waaye su fekkee ne nag da ngaa ñaari rakkaa da ngay mottali timis ga daal di sëlmal daal di fay julli googu nga xam ne gi moom nga waroon a fay daal di baamuwaat euh, timis ga fekk yow julleen nga ko ànd kook imam ba pare bu dee yow dong la it noonu nga koy defee waaye itam bu dee julli ñeenti rakka la nga dem ba ñaari rakka nga am ko maanaam benn rakka da ngay mottali ñaari rakka def ko naa fi dagg waaye boo duggee ci ñetti rakka nag da ngay dagg doog a continuer kon dal foofu war a seetlu rek mooy liñ fi jëkk a xam mooy ki ñuy jiite wala kiy julli moom dong saa bu fatle koo ne waran naa feeg julli rek julli googu maanaam mën nañ ne dematul waaye nag gis nga noonu ñu koy dagge nag da nga koy euh, faram fàcce xàmmee ko ba xam ni nga koy daggee waaye doo tëb rek daal di koy dagg su fekkee ni dañu laa jiite yow doo dagg sa julli fekk da nga war a na waaye da ngay xaar ba imaam sëlmal nga jóg fay julli googu nga waroon a julli daal di Eh, baamuwaat julli googu nga xam ne gi ci nga farlekoon ne war ngaa fee julli kon daal nañu ko xoolaat bu baax a baax moom itamit am na teqale gu ñu war a xàmmee ci ni ñu ko war a defee bu fekkee ni julli ga dafa dagg kon noo ngi dellu di ziyaare ñëpp nag di leen baal xaq di ñaan ñu baal ñu àq di ñaan yàlla eh, jéggal ñu suñuy bakkaar te nungul ñu suñuy jaamu yàlla te liggéey bu sell bi ñu séq mbokk yi di ci taxaw ngeen ki taxaw daal yàlla defal na ci lu koy suñ jot ci ay wàllu xewal gu mën a doon rek gudd gi fan ak wér fekk ak tal mujj gu rafet jaamu yàlla ko nungu njëgal ak bakkaar xewal goog poos ak kattan ak poos xéewal ak yaram ak kattan ak yaram ba li nu bëgg a liggéeyal islam bëgg koo liggéeyal xaadimu rasul lépp daal nu am kattan ak man ko bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax a baax mbokk Sénégal mbokk Afrique mbokk Europe ak États-Unis lu bees tax judd na ci réewum Sénégal ñeel wàllu tabax loolu lu mu xanaa entreprise TRTP Touba réalisation travaux publics lépp lu ngeen bëgg a tabaxlu moo xam dëkkuwaay villa gan ak moyen standing wala immeuble wala bérébu liggéeyukaay wala juma wala jàkke wala ngeen bëgg a def transformation intérieure ci seen biir kër wala ngeen bëgg a changer seen xar kanamu kër dama ne mbokk yi TRTP Touba réalisation travaux publics moo ci gaaw moo ci mën te moo ci gën a xarañ ndaxte ay liggéeykatam ay jàmbaar la yéen ñi nekk bitim réew wala sax yéen ñi nekk ci biir réew mi njaaxare jeex na am ngeen nag ku leen di tabaxal ci ay plan yi ngeen bëgg jokkoo ci ni mu gën a gaawee ak TRTP Touba réalisation travaux publics seen aajo faju te du ngeen sonn te kenn du lubal seen xaalis TRTP su ngeen xoolee seeni maquette yi xool it seen plan architectural yu yaa ngi yii ngeen xam ne ay tabax yu mucc ayib yu ànd ak kaarange la ñuy defar TRTP Touba réalisation travaux publics noo ngi Dakar cité port kenook juma Masalikul Jinaan lépp lu ngeen bëgg a xam ci TRTP mën ngeen ñu dugg suñu site web www.toubartp.com wala ngeen dem ci Facebook Instagram wala YouTube bu leen neexee it ngeen woote ci téléphone bi di WhatsApp bi itam 77 812 46 13 77 812 46 13 ak TRTP Touba réalisation travaux publics tabax leen seen ëllëg